asalaamaaleykum internet Senego TV ak kawteef ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di kontaan rek saa su ne ni ngeen ñuy suivre sur nos différentes plateformes mu nekk Facebook Instagram wala TikTok ci noonu aussi ngeen di topp rek saa su ne suñuy information ak li nga xam ne mooy suivi de cas wala it cas su amee ñu koy traité fii ci Senego sans doute yëg ngeen sur la toile li nga xam ne mooy euh, mbirum. hôpital Philippe Senghor nekk ay accusation yoo xam ne père de famille moom daal na ko def ci benn page Facebook ci noonu rekk lañ daal di dugg lijjanti ab numéroom nag ba tey père de famille boobu lañ toogal fii ci senego TV ak kawteef mu wax ñoo nettalin mbir moomu xew ca hôpital Philippe Senghor nan la demee wante it balaa ñoo dugg rek ci kaa bi dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu ak internet Senego TV ak Kawtef sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la daral bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala maa nga nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man la Mamadou Fofana waaw Parcelles Assainies laa dëkk Ndoye Dourousse. Mm-hmm. waaw man maa yóbboon sama soxna ci hôpital Philippe Maguilène Senghor. ma doon euh, def ay visite mhm. prénatal yooyu mhm. ak si mhm. dama ko doon yóbbu Sifa hôpital Sifa mu nekk si ginnaaw joor bi noonu bi ma demee foofu def traitement boo à la veille fu mu waroon a accoucher chaque fois su ma demee Sifa dama leen laajtee ñoom ma ne est-ce sama soxna fii lay lay accoucher ñu ne ma waaw fii lay accoucher donc chaque fois bu ñu bu ñu joxee ay rendez-vous ma dem foofu dama leen laaj encore. Mhm. seen carnet lépp mi nga ak man fii nii seen carnet mi ngi nii. seen carnet. Mhm. donc léegi ñu def seen point fort lépp daal boo mhm. jour bu desoon léegi accouchement bi bu desoon quelque jours ma ñëwaat foofu ma laajte leen. affaire gros parce que soxna si léegi commencé naa woon yéegaay yeneen i métaay yi quoi ci yaramam. Mm-hmm. ma ñëw ci ñoom encore. d'accord mais bu ma ñëwee ba foofu léegi ñoom ñu ni ma ah sa soxna daal il faut ñu jox ko note quoi mu dem ci hôpital Philippe Senghor. Mm-hmm. pour accoucher foofu. Mm-hmm. loolu accouchement bi déjà ban temps ban jamono la sa soxna daal di accoucher ñu yóbbu ko hôpital Philippe Senghor. ban weer la woon. ah ban weer la woon. le mois de mars la woon. mois de mars de mars la woon. d' accord si le 6 mars quoi. d' accord bi grossesse bi dafa compliqué woon wala it dafa amoon ay feebar yu ñu ko signalé woon wala grossesse normal la woon. amoon benn benn benn feebar bu xamante ni daal signalé nañu ko pour hmm. affaire soxna si daa ay yeneen yi yu métti daal. fu ñu waroon dem feneen pour que mu accoucher amul woon benn problème. d' accord ñaata at la am sa soxna. sama soxna. waa mu ngi nii dugg ci vingt ans quoi bon temps bu ma accouché woon moo en euh, euh, fin de dix neuf ans laa woon quoi. d' accord kon mm. mars mm. mille vingt deux. bii la ci la accouché. Mm-hmm. d' accord léegi hôpital Philippe Senghor lan moo fa xew. ba nga bind sa postu ne dañu sàcc say jumelles. benn ci say jumelles. waaw bon. soxna si moo. ëmboon mm-hmm. gis nga fu mu ëmboon mm-hmm. moo nekk nii mm-hmm. donc temps bu mu ëmboon suivi suivi am lépp dama ko doon def à norme parce dama bàyyi parce que sama yaay mu nekk Libéria. moo ma ko takkal indi ma boo Sénégal fii. yow euh, ban nationalité nga Guinéen la Guinéen la mais soxna. moom libéral lay jógee sama yaay tamit foofu lay nekk comme man li ma nekkee fii pour liggéey mm-hmm. sama yaay tamit libéral noonu lay nekkee foofu pour liggéey mm-hmm. mu takkal ma euh, benn soxna si pour indi boo Dakar fii moom ci boppam mm-hmm. sama soxna Cheikh la moom Cheikh la donc yàlla def nii mu taawaloo encore Cheikh yaa ngi dégg kan say soxna sa soxna sama soxna Cheikh la d' accord léegi ku taawloo moom tamit mu taawaloo encore Cheikh. sama ci marché bi bi. waaw yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi ma demee ma dem ci bindi ma note waa Sifa. Mm-hmm. ma note. Mm-hmm. mu ne dem hôpital Philippe Maguilène Senghor ah, si man man maa lay wax man est ce sama soxna fii lay si nga ni ma waaw. fii lay accouché nga ni ma waaw. sama soxna amul benn feebar boo xamante ne daal mun nañ ñu diriger pour dem ba Philippe Maguilène Senghor mhm. mu ne ah noote boobu daal demal foofu mhm. ñu comme parce que biir bi mu tooloon quoi daa loolu la ñuy gis réellement ñoom ñu ni noon lañuy dem foofu mhm. man waxuma dara ma jël sama clando ma taal sama clando ma dem Philippe Senghor bi ma demee foofu ma dem fekk foofu sage-femme bi Fatou Bintou Sow Gakou docteur Nicole nañ ko woowee bi ma demee foofu ma gis ko. Mm-hmm. mu ah, mu mu dugal ñu ci salle benn salle foofu fu ñu consulter jigéen ñi. Mm-hmm. léegi ma ma toog ci baam bi. parce que mm-hmm. dama demoon juste ma fekk trois personnes suñu kanam. ci bunt bi. comme sama soxna mi ngi doon jooy. métail bi quoi ci yaram bi. ñu ne non yéen yéeg dugal leen ci biir quoi. yaa ngi dégg mu ne yóbbu sa soxna ci biir. léegi ma dem rek moom mu jël. sama soxna mu dugal ci si ginnaaw benn rideau. Mhm. mu jën benn micro bu gudd ni mu teg ko ci. Mhm. biir sama soxna ko pour xam réellement essayer date bi jo jot na wala jotagul. Mhm. léegi loolu leen nekkoon mu génn encore mu ñëw mu wax ma mu ni monsieur monsieur Fofana euh, sa soxna moom il faut ñu def ko césarienne. césarienne mu ni il ñu def ko césarienne. et pourtant ci carnet bi day waxoon mun naa accoucher sax ci par voie normale mais mu ni ma dañuy def césarienne. man du ma bañ. Mm-hmm. parce que ñoom la ñuy yaakaar bu ñu amee lu xamante ni waaw suñu soxna yi lépp bu ñu amee eh, problème pour accoucher il faut ñu dem ci docteur yi. Mm-hmm. parce que ñoom la ñuy yaakaar. Mm-hmm. ginnaaw yàlla. donc bu ma waxee loolu man a am problème man léegi lu may def mu wax ma frais yi lépp lu ma waroon fay pour accouchement bi. frais yi ñaata la woon. à frais yi wax na ma d' accouchement bi euh, kii. Euh, am na yeneen i grave yi ni ma waroon a jënd affaire yooyu mu ni quarante cinq mille d' abord. Mhm. pas départ bi quoi. Mhm. parce que réellement lu lu ma fay bari na trop. Mhm. trop sax. donc léegi man laajte ko man ni waaw lu ñuy lu ñuy def mu ne ma da ngay dem suñuy pharmacie seen pharmacie foofu Philippe Maguilène Senghor foofu. am naa benn pharmacie. mun da ngay dem foofu jënd ay garab yi jënd ay lii mais moom dina ma indiqué foofu mais avant que man. ma génn fu mu nekkoon noonu ma génn pour dem ci pharmacie donc dafa ma waxoon mu ni naar bi yaa wax naar bi quoi boo ñëwee da ngay jox garab yi naar marocain bi. naar bi lan la fa moom. naar bi tamit médecin la fa. moo nekkoon assistance dans le bloc d' accouchement moo nekkoon assistance bi. d' accord médecin la tamit. ci mhm. hôpital bi. Mhm. léegi moom mu boolee ma ak kooku mais avant que man ma dem ci pharmacie bi dama yaakaar man kese may dem léegi. naar bi dafa takkoon sama ginnaaw. Mhm. dafa takkoon sama ginnaaw donc avant ma dem man ma def ko photo. naar bi nga photo ko. très bien naar bi ma photo ko. Mhm. gis ngeen moo nekk sama ginnaaw. naar bi ma foto ko. waaw donc bi ma ko fotee. dama mhm. yaakaar man kese may dem. parce que naar yi bari nañu foofu. Mhm. donc pour pourquoi nga am réflexe photo naar bi te dañ la ne demal jëndi garab rek. voilà dañ ma waxoon demal jëndi garab parce que su ma ñëwaatee. Eh, parce que naar yi bari nañ foofu. su ma demee après ma avant que ma ñëw déplacé na wala gisuma ko donc day ma loolu la ma jàpp ci bopp ma ni avant ma comp euh, ma. jaxasoo parce que moom kese am na encore. beneen naar bu nekk foofu naar boobu moo nekk nii gis ngeen. donc naar yi bari nañu foofu. Mhm. ñii lépp ay naar lañu foofu. Mhm. léegi bu ma doon dem ci pharmacie ndekete man ak naar bi sax ñoo doon dem ensemble. Mhm. ñoo doon dem ensemble. léegi ma jog ma dem ak naar bi ci pharmacie bi. garab lu ñu waroon jënd lépp ñu jënd ko ñu dugal ko ci mbuus bi. léegi comme kii bi matul woon xaalis bi matul woon ñu ni ma. bon pharmacien bi ku ku nekk ci bureau bi. Mhm. mu ne ma bon lu restant je vais t'écrire note mu ne dina ma bindi note. mu mhm. jox ma pour ki ma mën a dem jël xaalis bi kër gi pour innuwaat parce que innu ma woon xaalis yi lépp. Mhm. léegi ma jox ko avance bi bu ma ko joxee avance bi mu jox ma note. bu ma joxee not léegi naar bi jël garab yi ak euh, nécessité yi lépp dugal ko ci bloc bi léegi man ma daw ma dem pour liggéenti dem jël xaalis bi kër ga parcelle bi ma demee parcelle dem jël xaalis bi ñëwaat fay caissier bi léegi ma jaar ma dem encore fekk naar bi mu ngi ci bunt bi ma laajte ko. ban naar la ci kan la ci naar marocain bii nii. kii nii waaw moo nekk nii. moo nekk nii mhm. léegi ma laajte ko mi mi ngi ci bunt bi mu ne ma de faire votre travail mu ne ma ne non non mu ne bu ñu joxee ay ordre après ñoom day def seen liggéey man a am problème léegi man mu woon ma benn place ci biir cour bi foofu ma dem ma toog ma xaar mm-hmm. heure yi juste mu jot ñoom ñu dugg ci biir salle. loolu ban heure la woon. ay côté dix yooyu. dix huit heures vingt yooyu waaw la ñuy dugg ci salle bi léegi. Mm-hmm. pour dem def seen liggéey. ñu seetaan ren sama temps bo bon après parce que ci biir salle bi am nga man nekkuma woon foofu. Mm. léegi soxna si explication am foofu laa ñëw nii léegi. Mm. explication am bu ñu nekkoon ci salle bi. Mm. bu ñu commencé seen liggéey léegi opération bi ñu def opération bi bon comme soxna si def nañ ko anesthésie si si ginnaaw pour rey dret bi mais réellement moom mu ngi doon gis. elle était en conscience nalaw woon. Mm-hmm. mi ngi doon gis normal. léegi comme changement bi gis naa ni waaw soxna si mi ngi gis ñaar yi nekkoon ci wetam. mu ne na ñoom nañuy yëkkati sër bi bu baax pour soxna si bañ gis lu xew quoi mais déjà ñu jël benn bébé bi soxna si dëgg cri benn bi après ñu jëlaate encore beneen bébé bi deuxième cri bi soxna si dégg naa loolu lépp yaa ngi dégg par césarienne léegi ñu yóbbu bébé yi ci crèche bi bu ñu ko yóbbee ci crèche bi ah ndimbal yàlla moom kenn xamul fu mu jógee dan léegi naar bi avant mu génn ci salle bi mu yëkkati loxo bi nii ci ci kanam sama soxna mu ne am nga ñaar bébé soxna si yëngatu bopp bi kontaan ko naar bi wax ko. sa sa sa jabar. naar bi confirmé na ci kanam sama soxna mu ne am nga ñaar bébé naar bii nii. waaw yaa ngi dégg. Mhm. léegi soxna si kontaan yëngatu bopp bi comme dix-huit heures laa amoon doom. Mhm. donc léegi jour boobu am nga jour boobu mënatul amatul kattan quoi mais. ñu yóbbu ko ci salle jigéen ñi fu ñu nekkee noonu ci bloc bi foofu. Mhm. léegi man maa ngi ci biti rek maa ngi ci biti donc léegi après ñoom dañoo dañu woote parce que bu ñu amee bébé yi nii te ñoom ñooy woote papa ji. Mhm. pour affaire yére affaire yére yi ko mhm. léegi ñu woo ñu ma woo mu ni ko àndal ak Issata Camara ma jóg ma taxaw ma ñëw ma man la papa ji quoi man ma kii jëkkër. Issata Kamara léegi ñu ne ma indi yére yi parce que man valise bu ndaw laa yóbboon ci biir sama oto. Hmm. valise bu ndaw parce que sa soxna boo ko bëggee yóbbu ci centre de santé te yooyu donc réellement mooy faut nga préparer en temps parce que yow xam ngeen temps bi jot na pour accouchement et boo demee tamit doo xam heure bi ngay ñibbi moom. Hmm. doo xam léegi may préparer yére yi lépp yére yi ñaari xale yi sol nii lépp man maa ko jënd. léegi ñaari jumelles yi la. ñaari jumelles yi ñoo nekk ñaar yére yi lépp ñu ñu ñu sol man maa ko dégg ma dugal ko ci mbuus bi bu ma ko dugal ci mbuus bi te valise bi saa laa bëggoon jox ko ñoom quoi mais ñu ne non non valise bi am place foofu waaw ma indi ma dem toog ma def yére yi ci biir mbuus bi. yow bi nga leen di jox ñaari yére dañ la ne am nga ñaari doom nga jox leen ñaari yére wala hmm. dañ la laajteeg. ana jëkkëru ay rek. nga jël yëpp jox leen yi. cere yi nii lépp. Mhm. dama ko dama ko préparé woon en temps. da nga sa jabar dafa defoon échographie ba ñu confirmer ne dafay am. ay seer dafa defoon échographie lépp échographie yu lépp mi mi nga wax man fii. Mhm. dafa defoon échographie mais gis nga boo gisee ma indi ay yére yu bari nii ñu nekk kër gi lépp boo laajtee boo demee suñu kër boo laajtee ñu nekk foofu lépp mu ni foofa na bàyyi xel ah sa soxna bii nii dina am ay seex. mais est-ce que amoon na éco ñu foofa na fi ñuy waxee mooy déjà côté médecine est-ce que sa soxna def na échographie bu confirmer ne moom dafay xaar ay seex bon échographie bi bu ñu demee def échographie mhm. ci carnet bi ci boppam ci carnet bi ñoom ñoom ci carnet bi ci hôpital Sifa mhm. tellement pour pour bëgguñu jaxase affaire yi mhm. déjà ñaari écho laa defoon ñaari échographie laa defoon ci hôpital Chifa. Mhm. benn bi góor benn góor moo ko def. Mhm. deuxième bi beneen jigéen moo ko def. Mhm. à la veille beneen jigéen moo ko def léegi premier écho bi bu ñu defoon gis ngeen wane naa ñaari poches yi lépp notica notification kii bu nekkoon ci ka ci échographie moo nekk gis ngeen bi wan na ñaari poches gauche droite lépp bind nañ ko fi encore. côté gauche gis nga ñu bindi quasiment de 23 euh, millimètres à gauche et 22 millimètres à droite ñoom sax ñoo ko ah, affaire bi ñu ngi nii. Mm-hmm. donc léegi ñaari postes yi ñoo nekk nii turu Issata Camara moo nekk nii encore. Mm-hmm. lépp mi ngi ci kii bi nii Issata Camara moo nekk date bi mi ngi nii le 28 8 mois 2021. Mm-hmm. gis ngeen. donc notification bi moo nekk nii encore mun naa woon ne lépp après encore mun naa leen woon léegi bu mu defee lii lépp. mu pare ñu yóbbu léegi soxna si tamit jour boobu mu accouché ñaari chèque bu mu accouché léegi ñoom daal waxuñu ma de parce que dañoo bëgg am nga ñoom day doon ma nëbb mais soxna si moom xam na ci biir déjà. Euh, ñaari doom moom am na ñaari doom. Mm-hmm. donc ñoom yëre lee lay ma laaj. Mm-hmm. waxuñu ma dara de yëre kese lay ma laaj. Mm-hmm. mu ne ma monsieur Fofana waaw indi yëre pour sa soxna. ak bébé. Mhm. gis nga ñu mhm. wax loolu ko mhm. ma indi yére yi ma dem ma def yére yi ci biir mbuus bi ma jox leen yaa ngi dégg. parce que comme signalé bu ma dara man man tam ma jox leen yére yi ñu ma indoon ma dem toog. dégg lendemain bi. moo nekkoon léegi balaa ñuy jàll ci lendemain bi bi ñu la waa ñu la laajtee sa yére doom. ku ànd ak jëkkëru Aïssata Camara nga ñëw nga joxe yëre yi yow déjà jour boobu est-ce que gis nga say doom jour boobu wanuñu la bébé gis nga sa jabar tamit bi muccee ah. jour boobu jour jour boobu après accouchement bi gis nga sa jabar. accouchement mi ngoon ci salle bi noonu mi ngoon ci bloc bi. gisoo ko ñu naan ci buntu bi. d'accord pour que ñu ñu dugg quoi. kon da nga yére yi rek. nga dem ñibbi dañu ñu benn moo ñëw ci bunt bi. Mm-hmm. woote après ñu ñu ngi ci buntu bi noonu. Mm-hmm. woote ñu jóg ñëw jox leen nécessité yi ñoom ñu dugal ko ci biir yaa ngi dégg. Mm. mais yaa ko. xam nga mbir yàlla moom. waaw ba tey dañuy taxaw ci premier jour bi balaa ñuy jàllaat. tey premier jour bi bi nga gisante ak médecin bi jox ko yëre mm. bébé. Mm. Mm. yiñ la laajte. en même temps sa soxna bi mu accouché ba pare. nan la def ba lekk parce que après accouchement aussi dangay xiif da ngay sonn. ñoom ca ñoom. waaw jour nay ma wax nay ma mu ni ma ini. fonde fonde quoi. fonde waaw fonde la ñuy jënd encore loolu lépp ci hôpital foofu lay nekk. nga jënd jox leen ma dem jënd ñëw jox leen. mais ba tey gisoo sa soxna. ba léegi gis ma sama soxna tàmboo. après accouchement bi. premier jour parce que dimanche la woon déjà guddi côté guddi gi la ñuy nekk nii léegi. d'accord bon wanu ñu ma benn kii bi. pour que ma gis sama soxna wala ma gis bébé yi. non non sa xel daloon na sa sa soxna accouché. Mhm. ñu ne la indil sa yére. nga mhm. joxe yére kese te mhm. amoo euh, résultat kii information ci sa soxna sa xel ñaawutoon. non sama xel daal dégg yàlla moom amoon intention sax ñaaw pour affaire. ñu nekk ci biir foofu. non pas ñooñu mais pour sa doom pour sa. soxna pour sa soxna ndax mhm. mucc na ci jàmm mbaa mu ngi ci jàmm parce que it accouchement dafa métti. ñu ñëw wax la ko laajte la yëre rek nga joxe joxuñ la benn réseau kii. information ci moom sa xel euh, daloon na ci loolu. ñoom daal ñu ni ma tant que femme a foofu laa yem ak ñoom. Mm. ñu ni ma encore indi yëre yi loolu tamit dégg kontaan na parce que bu ñu waxoon am na ay fee bi am na ay fee dinaa xam ni waa am naa beneen problème. Mm-hmm. mais waxuñu ma loolu lépp. d'accord tant que médecin yi waxuñu la lu xamante ni daal day day jaxase ci sa bopp. d'accord loolu yow sa xel day daal. après loolu xewaat ci suuf si après loolu léegi lundi matin. Mm-hmm. yàlla def ni sama soxna bu mu toogee comme gisuma jour bu ma accouché. waaw lendemain bi léegi. man may yàgg ci biir cour foofu waaye guddi yooyu. Mm-hmm. bon doon laa ma tëdd ci biir sama clando bi ci biti. ma demee tëdd ci sama clando. léegi lendemain bi encore sama soxna mu ni dafa bëgg dem toilette. Mm-hmm. mbir yàlla rek. Mm-hmm. parce que su fekkee amu naa woon toilette ci biir seen bloc bi foofu. Mm-hmm. non duma ci xam dara. ba suñu jour de sortie bi. parce que bi ma leen joxoon yére bi dama leen wax mu ne soxna si waaw ñaata jour la ñuy def ni mu ni il faut ñu def foofu trois jours. trois jours la ñuy wax. trois jours boobu bu jeexee après mun nañu ñibbi léegi comme ñu ngi foofu. man jox naa leen ay yére léegi soxna si comme génn naa ci lundi bi matin mu gis ma ci biti parce que sama soxna anglais rek lay làkk mu gis ma ci biti mu ne ma en anglais mu ma baby I have twins mu sama jëkkër am na ay ñaari cheikh mm-hmm. ma kontaan mm-hmm. ma kontaan ma ne ko félicitation en anglais quoi ma ne congratulation bu ma ko waxee loolu léegi ma jël parce que dafa doon dem ci toilette ci si ginnaaw la quoi ma jël raccord yooyu ay tuyaux yi ni ñu ko ranson noonu ma téye ma gunge ko bu mu paree bu mu paree ma indiwaate encore boo ma jox ñoom ñoom ñu diw quoi mais bu mu waxee bu mu ma expliquer affaire mu am na ñaari cheikh ma laajte ko ma ne ana ana ñaari ana bi bi bi mu ni ma moom nampal na ñaari xale yi lépp jox nañ ko benn bi parce que soo fekkee benn benn kese la. Mhm. day ma wax directement nampal naa benn wa ay du du wax loolu day wax ne nampal naa sama doom. yaa ngi mhm. dégg. Mhm. parce que moom bu ma doon nampal xale remarqué na xale yi et xool naa xale yi parce que sama soxna boo ko ah, ku am doomam moom boo ko joxee doom pour nampal ko de am nga day concentré lépp ci bébé bi. mu xool bébé yi mu xool bébé yi bu baax baax baax gis ngeen. léegi mu mu ni nampal na yi ku leen jël. man maa jël maa ngi ñëw foofu. waaw photo yi man maa ko jël. waaw baax na mu nampal doom bi. très mhm. bien donc bu mu paree nampal ñaari xale mu wax ma loolu. Mhm. waaw ma félicité ko bu baax a baax après ma indi ko ma dugal ko ci bloc bi. Mhm. bu ma ko dugalee ci bloc bi ñoom trois jours la ñu joxoon comme joxoon nañu ay trois jours man ma ma ma patiente mais bu ñu ma woowee pour dem ma jënd ay garab affaire yooyu. pour kii bi si parce que dañoo yaakaar réellement man xawma dara quoi wala jànguma comme dama kul foofu toog noppi bon duma nekk fii ay bavarde wala kii donc ñu joxuma parce que yi ni nga gis ni mhm. ordonnance ni nga gis ni papier lépp ni yor naa ko kër ga gis nga mhm. ndekete jox na ma ordonnance bu ñu mais man waxuma dara comme soo ne si wax na ma déjà am na ñaari chèque nampal na leen man sama xel dal na li ma jox léegi man damay denc kayit yi rek mais man tamit aw ma ah, aw ma woon intention réellement est-ce que fii fee bi tànk dinañu dal mhm. bu tay nii nii nii mhm. léegi gis ngeen ñu bindi de bébé Issa du benn ordonnance de mhm. benn ordonnance ah beneen ordonnance mi ngi ne encore du benn du yaa ngi dégg du bii tamit trois ordonnances lépp trois ordonnances la maa la wax loolu trois ordonnances lépp am na fu xamante ni li li nga gis ni mi ngi ci kaw <laughs> yaa ngi dégg léegi man sama xel ba léegi dal na ci côté yi nii lépp sama xel dal na ci lii lépp léegi ma toog chaque fois bu ma woowee ñëwul jox ñëwul jox lekk fonde affaire yooyu ci soxna si dem naa boo benn deuxième jour bi dem naa boo gis ni ñoom ñu nekk ci biir bloc bi parce que jigéen ñi dañuy changente ci biir foofu dañuy changente ci biir bloc donc dem naa boo ñu nekk ci biir foofu noonu kenn mënul làkk anglais ci sama soxna après encore ñu wooma ñu wooma mu ni ñëwul nga expliquer sa soxna lu mu jëree garab yi yaa ngi dégg mm-hmm. ku nekkoon foofu tamit ci wetam ah sama diggante ak yàlla laay wax mm-hmm. man kese may tëdd ci sama bàmmeel duma leen koolee benn motif lu xamante yàlla dina ma ko laaj ëllëg mm-hmm. bi ma demee ma fekk soxna si sama soxna mi ngi nampal xale. ci benn benn benn xale. benn xale. ba benn kii nii. lay doon nampal. ku nekk ci mbubu verte. lay doon nampal jour boobu. ñu ni ma wax ko sa soxna en anglais mu bës wenn bi bu baax pour que waaw mu mën a bébé bi mën a jot kii bi quoi pour namp. Mm, mm. yaa ngi dégg léegi kii laa kii laa fekkoon jour boobu mi ngi ko nampal kii moo njëkk a namp encore. sama soxna wennam kii moo ko njëkk nam mhm. yaa ngi dégg mhm. léegi bu ma paree expliquer ko affaire garab yi expliquer ko en anglais encore man de term il faut c'est i give your tete to bébé good mhm. gis nga ma expliquer loolu parce que man damay tàqale ay anglais tamit parce que man bambara la waaw parce que ñu ñu ma gis lépp daal day yaakaar ay pël la léegi ma expliquer ko loolu moom déjà elle tranquille garab yi ni mu waroon jël ma expliquer ko lépp léegi ma génn waate encore léegi nàmpal boobu benn doom bi lañ ko jox kese mu nàmpal ko loolu deuxième jour bi la deuxième jour bi deuxième jour bi nàmpal ñaari doom ñaari doom yëpp léegi bi muy ñaari doom yow yaa ngi fa woon premier premier bi kii bi bi muy nàmpal bu bu verte dem naa boo fekk jour bu ma wokkoon pour dugg ci biir foofu mhm. dem ngi nàmp beneen bi déjà dama fekkoon kii pare naa nàmp quoi ñu yóbbu ko parce que dañ ko indi ci crèche bi day leen jël mhm. indi jox ko benn kooku bu nampee ba pare. Mhm. parce que tellement que xale yi seen kanam dafa nuro ba dañuy yaakaar kii tamit du du xam dara quoi. Mhm. parce que du lakk benn làkk anglais kese lay làkk ñoom mënuñu làkkante ak moom léegi ñoom ñu nekk foofu ñu def ay gestes yooyu mais moom mi ngi am en amee conscience mi ngi koy xale yi mbir yàlla maa ngi ñëw ci ci côté côté miracle yi lépp ñu defoon. léegi bu mu paral namp kenn ki kii pare naa woon nampal. kii boo pare yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi kii laa fekkoon mi ngi nampal ki bu mu paree tamit boog ñu yóbbu ko ci crèche bi léegi troisième jour ma ñëw ci troisième jour bi léegi parce que jour troisième bi la ñu waroon génn léegi pour. ñibbi dem ñibbi waaw. yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi ñu woowaati ma encore jour boobu ñu ne ma monsieur Fofana ñëwul nga yóbbu sa bébé nga def te def analyse. pour dem jënd ay ticket affaire yooyu quoi pour que ren boobu la ñu waroon ñibbi léegi soxna si sax génn na jour parce que mi woon ci biir pour defa yeneen yeneen branchement fil yooyu pour xool tamit moom analyse am yaramam lépp daal. Mhm. su fekkee am na amul yeneen feebar. jour boobu tamit dugg naa ba ci bloc bi. Mhm. loolu tamit vidéo bi yor naa ko parce que dugg naa ba foofu. Mhm. ma def vidéo vidéo fu ma doon jox euh, sonasi si sombi ci biir bloc bi pour yónnee sama sama yaay pour que ñu xam ni waa elle a bon état quoi ah, mhm. kii nañ quoi mhm. léegi léegi troisième jour bi lu xew troisième jour bi léegi mhm. bi ma ñëw bi ma ñëw pour jox ko affaire sombi sombi yooyu ci sona si ci biir bloc bi bi ma paree léegi comme ñoom jox nañ ma ordre léegi pour ñëw yóbbu bébé bi pour def analyse am pour def analyse am quoi pour xool su fekkee bébé bi amul feebar yeneen yi ak analyse complète bi ak résultat bi lépp jour boobu. Mm. léegi ma jël ñu woowaa ñu woowaat ma kii lay ma njëkk a jox encore ku njëkk a namp yàlla def ni encore moom lay ma njëkk a jox pour dem def analyse am léegi ma ñëw ñu jox ma bébé bi ma jël ko ma dem fu fu ñu defee analyse bébé bi ma dem boo foofu mi ngi nii. xam nga kii moo nekk ci kaw sama tànk bi. Mhm. mi ngi nii ah. waaw léegi ñu jox ma bébé bi mi ngi nii sama tànk. Mhm. fu ñu defee analyse seen kii bi noonu analyse fu ñu ko defee bunt boobu ci biir seen bureau fu ñu defee analyse la ni léegi ma tiré ak bébé bi photo du benn photo bi tiré na ak bébé bi ay photo ay photo ay photo yaa ngi mhm. dégg. léegi bu ma paree ci lii analyse. analyse euh, analyse bi lépp mi ngi mi mi ngi mi nga wax man fii parce que lépp laa indi moom analyse bi lépp laa indi ko voilà gis nga analyse bi ah. Mhm. def nañ analyse bi léegi résultat analyse bi mi ngi nii résultat analyse bi mi ngi nii bébé bu ñuy sàcc. le bébé vol bébé bu ñuy sàkk kii nii bébé bi bu nekk sama tànk nii. waaw kii. Mhm. résultat analyse am mi ngi nii. gis ngeen groupe sanguin gis ngeen B plus. gis ngeen hôpital Philippe Maguilène Senghor la yaa ngi dégg. am nga résultat kii kese kii nii moom kese moo def analyse jour boobu. parce que moom lay ma moom lay ma jox déjà ñoom seen intention quoi tey nañ kenn kii foofu mais kii lay ma jox. ma dem def analyse am ma pare ci analyse bi lépp analyse bi mi ngi nii résultat bi lépp mu ngi nii. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. léegi bi ma pare def analyse am ma yor bébé bi côté 11 ma joxoon lépp mi ngi mention bi lépp yor naa ko ma joxoon boo côté 16h maa ngi ak bébé bi. benn bébé bi bi. léegi lu tax laajte woo bi. très foofu laa ñëw nii pour expliquer la. Mhm. bu bi comme maa ngi ak bébé bi ci cours bi foofu. donc léegi yàgg naa ak bébé bi mu commencé léegi yëngatu affaire yooyu donc léegi man ma jël ko ma yóbbu ko ba fu sama soxna nekk noonu ci salle bi quoi maa ni ko parce que césarienne la def moom tamit mënu ma topp ci biir cour bi foofu. Mm-hmm. moom mi ngi ci ci salle bi mi ngi toog foofu mi ngi xaar. Mm-hmm. léegi bi ma demee ma dem ma jox ko soxna si bébé bi damaa dem jox ko bébé bi soxna si yaa ngi dégg. Mm-hmm. waaw dina la woon. gis nga dem naa boo jox soxna si bébé bi gis ngeen bu ma demee jox soxna si bébé bi nampal na bébé bi am nga ki moo nekk ci buubu vert bi nii ba léegi ba léegi moom la ñuy wax bi ma ko joxee mi ngi mi ngi tëdd nalaw gis ngeen mi ngi nii tëdd nalaw si ginnaawam léegi fii laa ko laajte léegi man ne mais that's the you tell me you have twins man keroog wax nga waxuñu ma mais yow wax nga ma am nga ñaari seex yi ana kenn ki mu ne ma sama jëkkër dama lay wax marque yi nekk ci bébé bi boo demee ñu ñaar d'abord quoi ci biir saal yi. waaw kenn ki am na juróom-benn baaraam. six baaraam six baaraam. ku ñu jox ni moom am na cinq baaraam yaa ngi dégg. Mm-hmm. léegi sama xel ñëw directement parce que avant loolu gis nga bu ñu bu ma waxee loolu ma tey bébé bi ma xool doxo bii ma xool ma xool bébé bi normal léegi bu mu waxee loolu man ma jóg bu ma jógee dem ci seen buntu ma dem laajte man soxna si génn leen sama deuxième bébé bi mu ne ban deuxième bébé man sa soxna si benn bébé lay am benn bébé lañ ko jox. Mhm. benn bébé lay am benn bébé lañ ko jox mu ñibbi man loolu ban wax la loolu. yow sama soona koo xamante ne moom moo nampal ñaari xale yi pendant tout ce temps bu ñu nekkoon fii nii moom moo doon nampal xale yi naa bébé yaa ngi wax ni mu ni benn bébé la ñu am man soxna si ngir yàlla dugal ci biir nga xool mun na la wax benn mandarga mu nekk ci ci bébé boobu nga nga nga ma ko mu ni ban mandarga man ko kooku dafa am juróom benn baaraam man ba léegi xam nga man gisuguma kooku léegi man am naa juróom benn baaraam bébé boobu mu ni ma nga ni lan amul moom mu ni ma mu ni amul benn bébé bu juru fii nii bu am juróom benn baaraam ma ni nga ni lan léegi comme Raymond dafa wax loolu dafa ma gis ni dafa bu bañ pour génne bébé bi ma bëgg offensé bunt bi moom mu dem ci boppam benn jigéen la bu pata mi ngi ci hôpital foofu Philippe Maguilène Senghor mm. léegi ma bëgg offensé bunt bi moom mu dem ci boppam mu dem gisi effectivement kii am na juróom benn baaraam gis nga sixième baaraam kii am na juróom benn baaraam léegi mu dem mu génnee ko mu génnee ko mu indi ba ci biir salle fu sama soxna nekk ak kenn ki gis ngeen. Mm-hmm. ak kenn ki mu ñëw mu tëddal kii nii si gin si ginnaaw sama soxna léegi mu jëlaate kii nii mu yóbbu ko man mais lii mooy lal sama soxna am ñaari doom ah ñaari cheikh yow nga bëgg nga nga bëgg réellement jël kenn ki mu ni du du suñu doom pour quelle raison nga def loolu. léegi ma topp ñoom ay discussion yi métti foofu les sages-femmes bi Fatou Bintou Sow Gakou madame Gakou moom foofu lay ñëwee léegi foofu lay ñëwee pour wax ni euh, déjà réellement monsieur Fofana kii du sa doom kii yaayam mi ngi ci biir man nga ni laal mu ni yaay kooku mi ngi ci biir yaayam mi ngi ci biir man nañu dem nga won ma yaayam mu bañ man ni d'accord comme bañ nga pour won ma yaayam ah mu ni noonu yaayam mi ngi nekk en coma mënuma woon bébé bi ki eh, jaayi kooku. Hmm. mu ni yaayam dafa nekk en coma ma ni d'accord mais kii am mun na jëkkëram mun na nekk fii jëkkër gi mun na nekk fii mu ni non moom amul droit pour woon ma eh, jëkkëram wala jox ma numéro jëkkër kooku man d'accord woon ma benn nit ku ñëw gunge eh, soxna si kooku ci biir hôpital bi nga ni kooku moo jur bébé bi nii bu nga yóbbu ci biir bloc bi noonu ma ni woonu ko nangul wanuma kenn léegi foofu laa nekk discussion yi métti ak ñoom discussion yi métti léegi benn pas gis ma benn pas bay fay bàyyi fay la quoi mu gis ma mu ne ma sama doom bul nekk fi discuter ak ñi comme bàyyi na la woon ni nga ko laajte noonu lépp nañu dem ci gendarmerie foire mm-hmm. ñu dem foofu gendarmerie day ñëw léegi léegi tranché affaire bi ma ne ko non non non même même naar naar bu doon assistance bi moom confirmé nañu ko maa ni mu woo naar bi naar marocain bi defu ko mu ni ban naar parce que dafa ma bëggoon jàpp en piège mu ni ban naar ban naar parce que man jour boobu laa xam ni naar yi comme bari nañ foofu donc man xaw ma seen tourne mais naar rek laa leen woo. Mm-hmm. léegi comme wax naa ban naar te gis ngeen naar yi bari nañ foofu gis ngeen léegi man ma génne sama portable ma won ko photo. naar bi sama ginnaaw bi ma ko wanee photo bi nii réellement moom sax daa jaaxal daa tiit ko yaa ngi dégg léegi paa bi jël ma ma taal sama oto ñu dem gendarme foire woo gendarme yi bi ma demee woo gendarme yi ñëw boo ci hôpital bi léegi ñoom ñu jël ñu dugg ci benn salle ñu toog bu ñu demee toog léegi sage-femme bi ñu interroger ko moom mu wax version am mu wax mu ne waaw et effectivement euh, waaw kii sa kamara nampal na ñaari xale yi. sage-femme bi mu wax loolu sage mu ne loolu mu waaw jox nañ ko mu nampal euh, ñaari xale yaa ngi dégg bu mu waxee loolu man dama fu ma toogoon ma ko mais ça ça se fait jamais munoo jox jabar jàmbur doom keneen mu nampal ko yow. temps feebar bu ñu nekkee ni parce que temps moom ñëpp masque lañ lañ doon saa sol maanaam temps moom léegi man loolu amul fenn munoo keneen munoo jox jabar jàmbur mu nampal mu nampal doom keneen loolu amul sama doom la sama doom la da nga bëgg rek jël bébé bi mais lii duma ko bàyyi fii. les gendarmerie ñoom luñ luñ luñ luñ wax. ñoom tamit ñu ñu interroger kii bi bu ñu ko interroger boo. boo pare interroger sama soxna encore mu expliquer exactement lu mu amee bébé yi bébé yi lépp ñaari doom bi lépp moo ko moom léegi inter interroger bu ñu paree def encore interview sama soxna sama soxna tamit ñu jóg ñu ñu lépp avant que ñoom gendarme yi ñibbi man leen na ñu dugg ci biir bloc bi pour que ñu mën a génne beneen bébé bi pour def ko kii bi quoi mm-hmm. pour pour photo leen ñoom ñaar léegi bu ñu demee gendarme yi en bunt bi bunt bi lañu nekkoon justement sage-femme bi xëcc gendarme bi bu mu xëccee gendarme bi woo ko eh, ñoom ñaar ñu waxtaan foofu après gendarme bi génn bu mu génnee rek délaissé ma délaissé ma bu ma délaissé rek dem toog ci biir oto am parce que nii la may rombee nii dem toog ci biir oto am man maa daw dem taxaw ci kanam oto am man mais monsieur mënoo ñëw boo fii man maa laa woo pour que nga mën a ñoo génne sama doom yow nga waxtaan ak sage-femme bi après nga bàyyi ma nga dem toog ci biir sa oto bi nga bëgg ñibbi man ni non non non loolu mënu nekk mu ne ma noo non noo moom dugg naa ci biir foofu mu fekk kooku mi ngi namp mi mi ngi namp wenn yaayam man ni non yow kii mu ne ma yaayam mi ngi nekk en coma mënul jóg yow nga nga wax ma encore nga ne kooku mi ngi namp wenn yaayam ci biir bloc. maa ne loolu mënu nekk. d' léegi ñu ñu ñu revenir sa poste bi parce que sa poste bi page trouvé perdu lañ ko gis. Hmm. déjà ñu leen di ñu leen di jaajëfal. ci hmm. liggéey bu am solo. Hmm. bu ñuy def fii ci Sénégal. Euh, mais tey yow sa texte da nga affirmer. sa affirmation bokk na ci ne Philippe Magaline Senghor. dañu sàcc sa benn jumelle. en plus dañu jaay xale bi. moo jaay bi tamit c'est c'est est-ce que pesé nga. moo bi nga wax. ak mm. aussi accusation yi. Mm. bu nekkee ne ñoom dañoo génn déjà sa ñoom génn nañ parce que gis naa benn texte bu ñu def ci mm. trouvé perdu. ba tey loolu après dinañ ci ñëw ci deuxième partie bi. est-ce que yaa ngi xoolaale aussi les conséquences yi nga xam ne mën na cee am. si fois bu nekkee ne da nga xaw a jaawale. wala nga xaw a juum aussi wala euphorie wala émotion jàppoon la ci côté jumelle yi. côté jumelle yi bu su ma waxee mu ni dañoo jaay ci beneen beneen cheikh bi ci beneen nit. Mm. parce que yor naa preuve bi. ani preuve loolu moo tax ma wax très bien. am na loolu moo neexal waxtaan bi. Mm-hmm. ñaari brassard ñaari xale yi ñu ngi nii ñaari brassard ñaari xale yi. Mm-hmm. ñu ngi nii yaa ngi dégg. waaw kenn ki ñu bind Adama Diagne et déedéet bu xamante ni sama doom man maa ko téye ci sama loxo sama baag bi mi ngi nii. xam nga lii moom doo ko wax loxo keneen la sama loxo mi ngi nii mhm. maa ko téye ma foto ko mhm. ma gis dañoo bindi loxo sama beneen cheikh bi Adama Diallo kenn ki ñu bindi Isaka Kamara turu sama soxna donc loolu xam nga ni damaa xam dañoo jël sama bébé jaay ko beneen nit ku tudd Adama Diallo d'accord ah donc léegi su ma waxee loolu parce que preuve bi lépp laa yor loolu moo tax ma wax ko dañoo jaay sama doom beneen nit ku turu Adama Diallo parce que mi ngi nii Adama Diallo Adama Diallo lañu bind wala beneen turu. Adama Diallo lañu bind. Mhm. donc loolu moo tax moo boobu ma wax ko léegi bu ma leen waxee discuter ma ni indi leen ma yaayi Adama Diallo bi ak papaam ba léegi depuis le 6 ba léegi fu ma toog ak yéen ni ba léegi nanguñu ma. woon kii bi. mars deux mille vingt et la wala mars deux mille vingt deux li ngay wax nii. mars deux mille deux mille vingt et d' accord deux deux léegi après est ce que demaatoon nga pour porter plainte. wala ut ay avocat vu que da nga jàpp ne sa doom dañu ko jaay. porté naa plainte. fan porté naa plainte deux fois maa ngi leen na porté plainte mais jusqu' présent avocat bu ma jël avocat bu ma jël. Mhm. avocat bi du wax dara avocat lépp lu ma jël lépp yor naa tam seen kii fii avocat bu ma jël du ci wax dara du ci wax dara dara dara dara dara ci mbir mi waaw du ci wax dara fay naa beneen avocat bi waxuñu dara fayaate encore beneen wax avocat ba léegi ni waxuñu dara yaa ngi dégg. Hmm. loolu moo tax média yi rek ñoo mën a ma dim jàppale réellement nit yi baax yi mun naa dégg même ci président bi suñu président Macky Sall ñëpp mun naa dégg affaire bi pour que justice mun naa teg si seen loxo pour que ñu mën a trancher affaire bi à l'amiable. Hmm. parce que man duma bàyyi sama doom seen loxo moom xalaatuma ko et bambaran la bambaran la wax naa ñoom sama doom duma ko bàyyi allah kulli haali incha allah du bàyyi sama doom seen loxo xalaatuma ko yaa ngi dégg. Mhm. voilà. d'accord ñoom déjà ci page bi ba tey trouver mhm. perdu euh, def nañ fa benn texte mhm. en même temps aussi benn genre éclaircissement biñ gisee sa poste parce que ñoom tamit euh, ci seeni kàddu ñu ngi jàpp ne euh, wax ñëw nañ déjà sa soxna bi mu ñëwee ak circonstances yi nga xam ne moom la accouché. déjà ñëw nañ ci mbirum koppar wax ci ne même bi mu ñëwee amoon nañ problème mu xaalis pour euh, fay yenn yi ba am na benn médecin boo xam ne moo la jàppale woon jour boobu te médecin boobu yaa ngi ko ciy mm-hmm. allahu akbar billahi wallahi tallaahi man yor naa sama ordonnance kayit yi lépp lu ma fay ci hôpital boobu ci pour sama soxna yor naa lépp. yor na lépp kenn jàppalewu ma ci dara ci hôpital foofu et jël nañ sama doom jox jaay ko beneen nit jour boo ma nekk foofu encore après accouchement bi trois jours trois jours bi lañu waroon def pour dem def naa foofu une semaine dewuma fenn def naa une semaine maa ngi foofu dewuma fenn dama buggoon tant que joxuñu ma sama doom pour ñibbi bugguma bouger. parce que bébé bu bu ñu am toujours ku nekk ci hôpital bi am moom a nekk ni gis ngeen. mais mm-hmm. ñoom ba tey it ba tey ba tey ñoom li ñuy wax rek lay wax. parce que ba tey. Mm-hmm. nee nañ deuxième jour bi nga xam ne. Mm-hmm. moom la sa soxna amee doom. ci la benn guinéen. bu tudd A Diallo. bi ñu bindal moo nekk photo bi nga won noonu. ñu ne ci la amee doom bu jigéen. est que du it ay jaawale entre temps. Awa Diallo Bane. amul woon benn Awa Diallo bu nekk foofu mu ni jur naa bébé bii nii su fekkee Awa Diallo bi ngi foofu na yaay ji ñëw na papa ji ñëw am na parce que déjà am na yeneen ay tes ay tes am na justice man pare naa pour wii leen fépp pour dem ak ñoom ñu dem ci justice ñu taxaw loo Awa Diallo ma taxaw jëkkëram taxaw ñu ni moom su fekkee moo ko jur mu mu ñu génnee ko mu ñëw mu taxaw man tamit pare naa bu ñu waxee addeen laal pare naa pour def mm. mais léegi gis nga bébé bu ñu biinoon ci loxoom Awa Diallo mm-hmm. ah Adama Diallo mm-hmm. gis nga mm-hmm. ah analyse am xolol xolol résultat analyse am yaa ngi gis gis nga B plus sama permis gis nga sama permis de conduire B plus sama groupe sanguin mi ngi nii B plus bi mi ngi nii B plus ku ñu yor kër ga nii moom tamit boosam mu ngi nii moom nanguñu saa def analyse ci kii nii ku am six doigts ñëw rek teg kook dem seen yoon ak kenn léegi moom tam def naa ko ci beneen hôpital mi ngi nii xolool résultat bi B plus sama permis mi ngi nii B plus ñoom ñaar lépp ay jigéen lañu ñoom ñaar lépp seen groupe sanguin léegi yor naa koy xam naa ko do amul kenn ku ma jàppale foofaay mbiri xaalis amul. Mm-hmm. sa jabar nan la dundee situation bi. ak benn jumelle bi métti métti ba léegi nii ba léegi nii boo gisee dama ñëw fii sax indi ko ba léegi nii affaire bi day ko jàpp yeneen i say parce que kenn ki sax ku mu yor ah kenn ki ku mu yor billaahi wallaahi taala lu xamante ni daal mbir yàlla lu mu garaaw benn côté wenn kese lay nàmp du nangu sax namp beneen bi. et jigéen nga jour boo déplacé nga dem boo suñu kër ma won la encore nga xool ñaari wenn yi toolawuñu sax lii amul benn sow bi kese lay nam billaahi day dund lu metti damay def perfusion yeneen say day jooy ma consolé ko ma ma waxtaan ak moom man nañu xool incha allah mbir yàlla moom nit yi baax yi dinañ taxoo benn jour pour ñëw défendre pour ñëw dimbale ñu ci fee bi pour que justice bi mun naa am Mhm. lan ngay wax internet Senego TV ak Kawtef ndaxte fii baaxoo nañ saa suñ fi indee kaa rek dina am de bonnes volontés yoo xam ne dinañ manifester mhm. pour mun leen a jàppale tey kaawu bébé vole mhm. vendre ci say kàddu du samay kàddu nag yaa ko bind yaa ko confirmer fii man dama wax rek li nga xam ne moom nga wax lan nga leen di wax euh, internet Senego TV ak Kawtef dégg yàlla ko maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax parce que boo gisee lii nii lépp li may wax nii lépp ngir réellement parce que seen télé seen rajo seen kii bi moo tax réellement yàlla def ni ma ñëw toog fii nii pour wax yàlla bu accepté tamit kàddu bi ma waxee fii nii ñu am ay bonne volonté ñu ñuy jàppale pour que moo mën a jot sama doom yàlla yàlla moo leen fay. Mm-hmm. àddina rek mooy seen fay soobee yàlla. Mm-hmm. maa ngi leen jaajëfal bu baax baax a baax. Mm-hmm. les mots me manquent pour sees exprimer mais maa ngi leen jaaj parce que réellement affaire bi métaay bi yéen day ma jàpp bu baax a baax baax bu wax bi sax duma ko duma mën a wax yeneen mil milliers yi quoi mais lii moom su ba amee nii ma ñëw exprimer ma wan leen te encore feey feey nu mu mel ñaari xale yi ah ñu saaj ñu ni encore lii dugg na ni génn na ni loolu moom metti naa trop man ma photo ñaari xale man maa ko photo photo yi ñaari xale bu ñu juddoo man maa photo maa photo photo yi lépp ci bloc bi fu ñu def analyse lépp man maa téye bébé bi su fekkee beneen nit moo ko moomoon mais mënoo yor bébé bi boo onze heures boo seize heures yaa ngi yor bébé si sa loxo yaayam laaju ko papam laaju ko loolu amul fenn léegi sama soxna bu ni tamit ñoom it ba tey ñu ngi lay ñu ngi lay dànkaafu ci seen post bi ba tey naan doo yor benn photo boo xam ne yaa ngi téye ñaari jumelles yi sa loxo. amoo condition yi loolu ñoom seen intention su fekkee du mbir yàlla man du ma teg su fekkee sama soxna remarqué wu kenn ka am na siiduwa billahi wala taala ak kii rek laa doon ñibbi ak moom du ma xam kenn ki du génn yow waxal ah. Mm. sa diggante ak yàlla bu soo fekkee soo ne si waxul kenn te am na juróom-benn barab kii kese laa doon ñibbi ak moom parce que kii moo bari sa ay photo kii benn photo kii photo bii rek lay am ku ñu yor kër ga ni kii bii photo bii lay am ah seen intention seen intention am nga brassard kii moo nekk nii. Mm. brassard kii tamit moo nekk nii. yaa ngi gis. am nga lii moom mënoo wax ni réellement su fekkee ñoom du intention jaay sama doomu Adama Diallo bii nii mais lu ma mën a xam réellement euh, bébé bii nii waa dinaa ko jotaat parce que man sama loxo moo ko photo woon naa la léegi léegi. mi ngi ni sama bàgg bi mi ngi ni feeñ naa mi ngi ni. Mhm. parce que mun nay wax loolu lépp mu ne loxo keneen la mais mbir yàlla moo gën a garaaw lii lépp boo gisee yàlla won ñu ko. Mhm. parce que déjà ah lu lu lu Sénégalais wax lu ëpp tuur. Mhm. loolu moo leen daal. d'accord. Euh, ñu lay jaajëfal di la mhm. masawu di mhm. ñaan aussi solution am mhm. niñ la invité aussi noonu la ñuy def tàllal suñu micro ñi nga xam ne ñooy waa Philippe Senghor vu que kaala ñoom tamit ñu joxe seen version des faits malgré ka seen communiqué wala seen post bi ñu dugal ci trouvé perdu page Facebook boobu aussi exploité nañ ko ci interview bi mais vu que liggéey la rek te dañuy équilibré ñoom tamit dinañ leen laaj seen version masawu nag di la masawu bu baax di ñaan yàlla génnee eh, la ci situation yi indi saafara ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi la nga tàggoog suñu internet yi ñu mm. daal di yëkkati jootaay bi maa ngi leen jaajëfal yéen lépp ñu seetaan ñu déglu ñu ñu am lu métti tamit ci seen xool ci affaire bi daal dégg yàlla moom ñu lépp ay jeunes lañ mbir mbi ni il faut ñu taxaw ñëpp jàpp si pour que réellement mun nañ jot suñu doom parce que suñu suñu doom la kenn xamul lu muy doon suba ëllëg donc lii il faut ñu jàpp si parce que ñu lii nii bu ñu ko metre fin tamit pour que lii mu arrêté nii lii lii dinaa dalil ñu bari bari bari kenn du ci kenn du ci mën dara. mais bu ñu mettre fin lii ñu jot suñu doom dëgg yàlla moom yàlla kese moo leen fay. Mm. seen fay moom ci loo ko yàlla lay nekk mais waa média itam te mënu man daal awma seen fay. yàlla kese moo barkeleel seen liggéey fay leen boo ngeen leen kontaan. parce que képp ku xamante ne doxal nga ci mbir mi yàlla mu ni boo boo boo sauver benn nit dundu am parce que man boo gisee damay tàng dem maa ngi dugg fépp parce que réellement kenn xamul lu ñu ko dee lu ñu ko def. dañ koy dañ dañ ko raywaal dañ koy sacrifice kenn xamul mais moo tax il faut ñu jóg ñu lépp ñu dugal suñu loxo pour que ñu mën a jot bébé bi parce que bu ñu ko bàyyee ni bébé bi dañ dañ ko def lu leen neex loolu neexul ci yàlla. mais képp ku xamante ni ñëw na jàppale ñu pour que ñu am bébé ñuy jot suñu doom ah sa fay moom du tey du ci ah, fii de mais da ngay xam ni yàlla kese moo moo moo mooy góor mhm. yàlla mooy buur moom dinaa fay ku nekk ci sa xol bu rafet bi bu mhm. soobee yàlla incha allah. Mhm. jërëjëf internet yi jëf yow tamit. ñu ngi lay jaajëfal bu baax. monsieur Fofana Dianké ne moo nekkoon ci kàddu bi nguur gi ci parti technique bi mm. jërë ngeen jëf ci beneen émission.